yaa jóg dem ci salon de massage kenn yóbbuwu la fa nga dem fa guddi ñu maase la la fa xew kenn xamul nag ba tey fii à part ñoom ñaar ak ñi nga xamante nii ñoom ñoo fa nekkoon kenn mënu laa wax lu xew peut-être ñi ngi ñaan yàlla justice leeral mbir mi li nga xamante ni nag moom moo am nga xëy di wax ne way président Macky Sall la wala gouvernement bi la wala euh, benn Bokk Yaakaar la wala pouvoir bi la moom ci boppam dégg nga ko mu ne ñàkk fayda weesuwul ponkalu magum jëm kilifa nga def sa tooxi doona jóg di jiiñ naan ma sàmbala ak ma demba gis nga euh, kii euh, Maymuna sénégalais yi ay boroom xel lañ ay boroom xalaat lañ donc ñun am na loo xamante ni suñu jëlee yëkkati ko teg ko ci deru ku mel ni président de la république te ñu xam ko xam ne moom tey jii am na yeneen yoo xamante nii mi ngi ci boppam lu dul ay yow caaxaan parce que président Macky Sall tey jii jàpp naa ne àdduna bi ak li nga xamante nii moom mooy mbas mi ni mu loo fale économie àdduna bi moom muy wuti ay vaccin nga gis ne jot nañ ci deux cent mille di ci waaj a jotaat trois cent mille mercredi di xool nan la ñuy fexe économie bi mën a jugaat moom mu am kàddu goo xamante ni dañ koy déglu en Afrique dugg ci troïka bi war a nekk président Union africaine di liggéey liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo pour que réew mën a jëm kanam nga defe ne kooku tal na nekk ci ay yoo xamante ni ay yëfu caaxaan la donc moi je pense que loolu moo tax noonu dama loolu moo tax président laale aussi dama ne loolu moo tax waa APR mën nañ ci laale waa taqal ma ci rek comme yow taqalaate nga fi nekkee ma ne li ma la mën a waxal mooy ou des gens proches du régime ou des gens qui cherchent à faire plaisir au régime waaw mais xam nga loolu yow sa xalaat la mais en tout cas li am mooy une sénégalaise citoyenne sénégalaise Adji moo porté plainte un citoyen député Ousmane Sonko pour viol menace de mort fan la ko porter plainte du ca pale ba du du du ci biir siège Benno Bokk Yaakaar du siège Alliance pour la République Sweet Beauté la Sacré-Cœur la nekk pour jóge foofu dem këram da ngay jël jéggi tali jéggi ko dem ba foofu dox fa dem fa guddi dem ñu maasale et puis ma wax la benn affaire tey jii bu fekkee ne dañuy xool ay complot dañ ne ñun mu mënoon nañ jékki-jékki ñu ne complot beneen côté la parce que ñoom ci seen bopp y a des yoo xamante nii amul fen incohérence parce que ma déglu par exemple yow laa la la la man damay déglu ñëpp di déglu yow ngay déglu yow dégg nga ki nga xamante nii moom mooy borom salon bi mu ne Ousmane Sonko premier jour bi mu fa ñëwee tabaski la du yaa ko dégg bi mu ñëwee mu ne moom moo ko juru tabaski premier jour la fi ñëw mu maase ko du loolu yaa ko dégg Ousmane Sonko premier conférence de presse am du yaa ko dégg mu ne sama benn xarit moo ma proposé la nga xamante ni moom mooy suite beauté boobu ba ma fa demee premier jour man laaj leen est-ce que am ngeen masseur ñu ne amuñu masseur ma ne leen maa ngi dem ñëwaat alors que ndaw si moom dafa ne premier jour la ñëw mu maase ko premier jour beneen bi mooy non déglu ma rek pour incohérence pour incohérence nga déggaat ndaw si ci boppam mu ne moom moo ko maase jour ba mu fa njëkkee ñëw Ousmane Sonko nga déggaat ko ci conférence de presse mu ne musuñu ko maase te exiger wu. mais ndaw si am na lu mu wax tamit loo xam ne déglu ma rek ko laal ku ko woo di ko proposé déglu ma waa déglu ma rek ñaari nit loolu bu fekkee ne am na nañ ko génnee dans les enquêtes comme nee na ci kanamu gendarme bi la loolu enquête bi peut-être dina ko leeral non dama lay wax li nga xam ni ba ma ko dégg man xam nga li ñuy wax loolu la ñuy wax la mais lu ma dégg Ousmane Sonko ne mosuñu ko commencé te exigé wul ñaar xam nga loolu incohérence la El Malick chargé de communication dem benn émission daan ne daam bi ci complot bi la bokk mu dégg daam bi waxaat mu ñëw fii ci yow fii la ko waxee woon sax xam nga yàlla li muy def daan ne yow nga ne ko yow sax yaa ko posé question bi nga ne ko waaye yow yaa ne bi ci complot bi la mu ne waa maa ngi jéggalu parce que dama ko déggaat mu wax xam nga donc je pense que bu ñu xool ay incohérence ce qui veut dire que ñoom ils sont en de surfer sur ay yoo xamante ni amul fenn fu ñu ko teg te tey ji amul benn élément bu ñu génnee ñu ne lii complot la wala ñii laale nañ ci wala ñee laale nañ donc moo je pense que tey jii xam nga li gën mooy gis nga boo nekkee kilifa def nga defoo. yaa ngi joxe leçon de. ñu sosal la joxe non non du question leçon damay wax li nga xam ne moo war a am parce que ki nga xamante nii wax nañ ko fii Bougazelli même bu dee affaire phobie lañ ko tuddee woon mais bi ñu ko euh, euh, jiiñee jàpp ko dafa démissionné te pourtant mënoon na ni majorité bi la bokk su doon forfaiture rek moo ñu tax a ñu dem ñu ne du ñu lever. vous n'aviez pas le choix non question amul choix moom. amoon na choix non attends ñun peut être ma ne moom da ngeen amoon na choix bi ñu ko jiiñee mu toog xaar. ñu lever son immunité parlementaire il l'a pas fait il a démissionné Sall bi ñu ko jiiñee dafa démissionné Mamadou Seck à l'époque bi ñu ko jiiñee dafa démissionné nekk ay kilifa parce que jàpp naa ne kilifa su fekkee ne yow da ne da nga bëgg a jiite réew bi da nga bëgg bekk réew moo xamante ni réew mu normal la mais su fekkee ne jiiñ nañ la lu toll ne viol ak menace de mort te loolu ni mu mun a yàqee daru doomu aadama mais li gën moom mooy nga dem setal sa bopp. mais Abdou Mbow loolu jàpp naa ne mooy li nga ni moom la kilifa war a def. Euh, dafa mel ni. Euh, mbiru Ousmane Sonko bi dina wute trop avec les affaires Karim Wade ak Khalifa Sall. c'est-à-dire dina parce que yee affaire ay deniers publics la bii. accusation boo xamante ne waaw déglu la boo xam ne benn fille moo accusé Ousmane Sonko de viol menace de mort bien que am na présomption d'innocence donc affaire yi moom. may mun a wute na. un peu partout dans la diaspora. sénégalais yi di génn di manifester. dans certaines localités dans la capitale à Ziguinchor gis ngeen euh, mbir mi. Euh, la la may mën a à Dakar Ziguinchor ban dëkk nga gis manifestation. nga naan dans certaines localités. dans certaines localités à Dakar et à Ziguinchor. laa la wax ma li ma la wax leer na nit ñi ñu ngi euh, ñu ngi manifester. Mhm. Ousmane Sonko nee na cette fois-ci Macky Sall devra se salir les mains ce sera un mortal combat gis nga disposition bi ñu gis aujourd'hui nit ñi dañoo xaw a tiit xaw a xaw a xaw a jaaxle ragaloo euh, mbir mi indi une déstabilisation dans ce de de ce pays là. xam nga ma tax man xam ne Ousmane Sonko est différent des autres. non xam nga déggoo li ma la mais la ko waxee ba ay affaire deniers publics la bii bii dañ ko jiiñ viol menace de mort donc c' est deux totalement différentes ce qui veut dire que amul dara loo xamante ni taqe na ko wala laale na ko politique te sénégalais ci boppam xam nañ loolu. maintenant comme ni ma la koy waxee man awma benn tiitaange boo xamante ni am naa ko par rapport ak sécurité du pays et des biens pourquoi parce que comme wax naa ko ci benn rajo nee naa leen tant que le président Macky Sall sera à la tête de ce kenn du déstabiliser institution yi. vous êtes confiant. non mais du confiant c'est que loolu c'est une certitude réew mi kenn du ko.